docteur Souleymane Keita ñu ngi lay nuyu di la dalal. ok jërëjëf mhm, merci. ngay enseignant chercheur université Cheikh Anta Diop euh, bu Dakar ñu dooree suñu waxtaanu suba si ak rapport doing business euh, atum ren euh, du am. ndax mhm. banque mondiale wax na ni euh, gannaaw nag liñ koy tuumal dañoo manipuler rapport bi euh, jox avantage bi Chine li ni mel tax ba ñu war ko annuler duñ ko fësal lan mooy njeexital bi lan mooy conséquence bi. conséquence bi dafa bari parce que boo xoolee actuellement euh, suñu référence bi actuellement banque mondiale la. Mhm. mais nag banque mondiale bi moo établir indicateurs yi indicateur boobu. loo ñuy seconde pour def suñ euh, suñ politique économique bi mhm. donc boo xoolee banque mondiale kii mu nekk référence kii àdduna en tout cas en matière de statistique banque mondiale boobu mu jël information bu mel noonu mu falsifié ko donc muy lan amul am référence maintenant kii àdduna bi parce que en matière statistique aujourd'hui en matière de bonne gouvernance banque mondiale ñoo xam ne ñu nekk suñu référence bu baax baax maintenant ñoom bu leen falsifier benn donnée ñoom muy falsifier benn information dina am impact yoo xam politique économique bi pays bi muy war def. Mhm. mu ful ne ne aujourd'hui par exemple boo bëgg benn investisseur mu ñëw sa kër wala sa dëkk. Mhm. bu banque mondiale nee na rek sa pays bi dafa dafa sell. Mhm. wala sa pays bi dafa seng. automatiquement nga gis bu investisseur yi ñu génn bitim mi jël ñëw sa kër. donc loolu tax donc information bu mel noonu comme ça il va n'est-ce pas crédibilité de banque mondiale la mu fees problème bi fala la lu tax problème bi mu am. Mhm. pour mu trouver solution yoo xam ne pour ñu bàyyi. ëllëg problème bi muy am. tey jii euh, duguleet yàgg nañoo euh, yàgg li mel nii amoon na fi euh, ndax li ni mel du tax xel ñaaw ci rapport yi nga xam ni moo jot a am at yépp waaw loolu la loolu la problème bi bu bu xoolee histoire économique bi de première fois yi mm -hmm. peut-être que les années récentes bi boo xoolee ñaar wala ñett la mhm. am na benn pays yoo xam ne nekk pays Amérique latine am jafe-jafe ak Amérique ak France ñu constaté que pays boobu banque mondiale mu falsifié chiffre macroéconomique boobu pour ñu ne que pays bi pauvreté bi dafa yokk yokk euh, sous-alimentation bi dafa yokk PIB bi dafa yokk dafa baissé croissance bi dafa baissé or chiffre bi banque mondiale moo manipulé. Mhm. à cause de ça maintenant benn investisseur yi ñëwagul ko pays bi pour ñu xam li ñu war a def donc conséquence bi moo tax investisseurs yëpp ñu daw pays bi. tey nan la mën a def pour corriger li nga xam ne moo ko dal nii. li mu war a def c'est simple muy def enquête sérieuse ñu dem ñu jël peut-être un cabinet indépendant ñu xool ñu situer responsabilité bi kan moo def la lu tax mu def ñu sanctionné ko sanction exemplaire parce que li mu nekk nii c'est la crédibilité yoo xam ne ki Banque mondiale FMI mooy en jeu ñun économistes africains yi bari na chaque fois ñu xool suñu pays bi ñun ñu laxatu lu tax pays bi du jël sunu indicateur ñun ñu élaboré pour def suñu politique économique bi foofu banque mondiale yi ñuy defar donc raison pour laquelle pour que mu sauver crédibilité am bi mu xool problème bi fan la nekk mu situer problème bi ñu jël décision bi muy war a jël. ndax jotul ñu def taxaw seetlu xool lan mooy importance su rapport yooyu. en fait au-delà de tout malgré que c'est boobu. banque mondiale fu ñu xool li ñu war a wax xam lenn la. Mhm. rapport yi am na importance bu bari bari. d'accord mi dégg nga war a wax importance bi dafa bari. Mhm. parce que à partir de ces rapports yi yoo xam ne banque mondiale wala pays yeneen pays yi ñu jël décision bu baax. Mhm. pour xool naka la ñu war a def dégg nga. dañuy natt seen bopp daal. exactement donc maintenant rapport yi am na solo loolu. amul werante pour boobu. Mhm. maintenant problème bi maintenant c'est la crédibilité yoo xam ne ñu war a am ki par rapport rapport bi loolu la ñu war a xool. mais rapport bi boppam am na solo trop trop parce que pays normalement boo bugg jël benn décision. Mhm. boo bugg def relance foog nga am yoo xam ne papier mu la permettre nga jël benn bonne décision. et eh, justement bu ñëwee Sénégal tey bokk na ci dëkk yi nga xam ne joxoon nañu solo loolu rapport Doing Business bi tey euh, gis nañ ne réalité yi bokkul indicateurs yi bokkul euh, li mhm. jëm ci Afrique ak euh, pays occidentaux yi ku ci nekk mhm. ak sa réalité ci wàllum économie ak ci wàllum mhm. nattuwaay tey jotul ñun ñu ñuy jiite ci Afrique ñu gën a bàyyi xel suñu Euh, euh, ki institution yi nga xam ne ñoo fi nekk di leen nattal ci wàllum koom-koom. justement am na institution su nekk suñu bopp ñu jël décision bi mais foofu que en Afrique globalement yoo xam ne suñu institution bi lu ñu def kenn du euh, jox ko dëggan cest à importance li ñu war a jox. problème bi leen ful daal. exactement loolu mooy problème mais sinon suñu institution yi jël benn matuwaay bu baax baax sax am na étude bu baax lu ñuy def mais kenn du jox importance bi lu ñu war a ko jox. Mhm. problème bi foofu la mais sinon am na étude bu baax a baax lu ñuy def am na l'ANSD ñu fi agence nationale de statistique et de la démographie yoo xam ne nit bu xarañ ñoo nekk foofu yu def étude bu baax baax yu am technicité bu baax baax baax. Mhm. donc or boo xoolee par exemple. la plupart du temps indicateurs yoo xam ne banque mondiale mu utiliser mm-hmm. foofu la ñuy génne pour def seen indicateur mm-hmm. donc na pourquoi du du gél am confiance ki ñoom pour gél benn décision moom problème ñu wax ci pauvreté gannaaw enquête bu mujj bu ANSD bi nga xam ne app bi xaw na yàgg euh, donc mm-hmm. du atu 2019 mais xaw na yàgg tuuti boo koy natt 2011 la tey ji ñu ne pauvreté yokk na booba ndax foogoo ne gën na yokk ba ñu gisee àdduna bi ni mu métti rawatina suñu dëkk. voilà loolu foog nga xara taw benn taw bu baax parce que pauvreté bi fu nga xool d'abord ñaan condition ñaan contexte étude bi ñu def wala mm-hmm. benn période bi la ñu prendre en compte mm-hmm. étude bi muy jël en compte de deux mille onze c'est deux mille douze ba deux mille dix mm-hmm. loolu c'est important de le signaler période boobu boo xoolee économie sénégalaise yi mu def jéego bu baax baax baax uh-huh. surtout en matière de croissance économique ok uh-huh. donc benn loolu mooy benn donc ce qui dit que si loolu moo expliqué yoo xam ne baisse taux de pauvreté bi uh-huh. benn maintenant nombre de pauvres maintenant moo augmenté c'est-à-dire que boo xoolee 2011 année de référence bi nombre de pauvres yi xam ne boo ko xoolee cinq millions Euh, quelque la cinq mm-hmm. millions huit cent mm-hmm. étude boobu mu xoolee nombre de pauvres mu yokk six millions et quelque loolu c' est parce que mm-hmm. population yokk na donc maintenant nombre de pauvres muy war yokk c' est normal tey ndax mbas mi euh, taxul tamit euh, ñu gën a gën a wàcc ci wàllum tey croissance ndax daan nañu wax sax ne tey ji suñu croissance nërmeelu na ñoo ngi ci récession yi ni mel ndax foog nga ne ni nga gis tey ñuy taxawaatee dinañ am yaakaar ni suñu croissance dana delluwaat même bu tollu ci 6 pour cent gi ñu doon euh, euh, bi ngiñ doon bàkkoo dina ko xaw a jage. ok en fait foog ñu wax donc dëgg parce que en fait problème bi man li ma nangul ñuy wax relance parce que problème bi crise bi kenn xaw xam ban moment crise bi mu gér benn mhm. économiquement crise bu mel noonu comme ça pour que mu geer euh, effectivement même si crise sanitaire bu geexee économie bi du am ressentiment donc par conséquent il a période d'ajustement d'abord li ñu war a am après maintenant période de stabilisation après période de stabilisation maintenant ñu ñëw période de relance mm-hmm. maintenant ñu ñëw rek après crise bi ñu am relance loolu mënul nekk mm-hmm. peut à wax politique la mais wax économique bi loolu mënul nekk une crise comme une crise sanitaire qui est devenue une pandémie mondiale mm. boo ko analyser bu baax baax a même tey tey par exemple ñu xool scénario bu plus optimiste ñu ne par exemple deux mille vingt et crise bi geex na mais maintenant crise bu bu geexee économiquement il faut au minimum parce que actuellement indicateurs yi yëpp yëpp yëpp état bi respecté wu kenn mm-hmm. parce que dette bi yokk na pour pour fàq nit yi dégg mm-hmm. maintenant par conséquent foog ñu yokk au minimum au minimum cinq ans cinq ans boobu mooy lan quatre ans six ans pour que ñu am euh, respect de certain nombre de principes bul fàtte Sénégal muy am ce qu'on appelle union économique et monétaire mm-hmm. am na règle de convergence yoo xam ne ñuy war a respecter règle de convergence boobu moo ne par exemple niveau de dette yoo xam ne ñu war a respecter niveau de crédit bi ñu war a respecter n'est-ce pas mm-hmm. donc niveau boobu yëpp pour que ñu respecter ko maintenant foog ñu am c'est-à-dire que am minimum quatre ans cinq ans parce que actuellement boo xoolee par exemple nga ne Sénégal nit mu am lu mu lekk lu mu war a naan amul xaaj maanaam l'état bi du dem euh, de bord dette pour financer loolu loolu a nekk. Mhm. donc par conséquent foog ñu jox au minimum cinq ans pour que ñu rétablir d'abord équilibre bi après cinq ans autres années maintenant pour ñu commencer respecter donc relance bi boo bëgg wax après crise bi pour nga wax au minimum sept ans huit ans. tey ñu jeexaleek màggal Touba bi fileeg ay fan euh, danañ ca àgg ñu ngi ci wàccuwaay wi déjà am na ay euh, taalibe yi nga xam ne ñoo ngi wutali Touba te yan effet la màggal bi di am ci chiffre d'affaires. ok màggal bi faut que nga xam magal bi au-delà de l'aspect yoo xam ne religieux am na aspect économique parce que magal bi am na beneen étude mu woon ne ne magal bi muy générer au minimum au minimum cent quarante et quelques milliards chaque magal. Mm -hmm. donc loolu bu bari la donc ma nga su yoo xam ne su consommation wu ñu bari bon ki ki wax consommation dafa bari wax production dafa bari bon production dafa bari donc ça veut moom investissement moo bari donc ça veut que Magal am na aspect bu gën a grande importance yoo xam ne sur l' économique. Mhm. kon mën nañ jàpp ne Magal bi mën na doon tamit benn euh, moyen euh, pour yenn entreprise yi nga xam ne dañoo nërmeelu woon ñu jógaat. exactement su occasion bi la ñu euh, entreprise bi mu war a am yeneen chiffre d' affaires. mu def en cours la l'année mu def ko na loolu moo ngal mi moo jox occasion boobu. docteur Souleymane Keita ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup man maa leen def c'est moi qui vous remercie. ngay enseignant chercheur ca université Cheikh Anta de Dakar.